xibaari biti réew yi soxna maam Fatou Kébé. dañ koy dooree ak fi nga xam ne moo di Burkina Faso lu toll ci juróom benn nit yu fa faatu juróom-ñeer di ay jàngalek mbir ya ma nga xew foofa ca Mayeta mu nekk nag ñaar fukki kilomètres ci digganteem ak Komieta ay nit yu yor ay moto yor ay ngànnaay nag ñoo wàcc ca la dëkk yooyu ñuy songu jàngalekat yi bu ñu sukkandikoo nag ci kuréel gi nga xam ne moo jiitee jàngalekat yi mi nga xam ne ne jàngalekat yi tàmbali woon nañ di leen xupp tréma mu koy ñaawlu ci contre Twitter ñu dem ba fi nga xam ne moo di Cameroun fa jën firi moom lañ fa fëkk nag ma nga xewee foofa ca biir Mozambique lu toll ci ñaari junni nit ñoo daw làqu ngir ngelaw lu bëri lu am doole lu fa yàq lu bëri nag na nag jamono ji nag nag andil na leen ay gàllankoor ni dëkkuwaay ñu fa la lañ fa teg loxo gannaaw liggéey boo xam ne waaye takki der yi def nañ ko ak ñoo ko fa doon amal du moom dong jàpp nañ fa lu toll ci ñaar fukki nit ci ay jihadiste yoo xam ne teg nañ leen loxo ñenn ña di ay waxambaane jërë ngeen jëf leen indiloon ci xibaar yi bitiré yi